fi nee ba léegi li muy wut rek mooy jàmm jàmm joo xam ne dafa lalu ci dëgg parce que fu dëgg fu dëgg amul jàmm mun faa sax fu justice amul jàmm mun faa sax donc pour ñu euh, mun a mottali loolu nag il faut que Sénégal yi may ñu nopp il faut que Sénégal yi ànd ak ñun ci wut jàmm jooju lal ko ci dëgg moo tax euh, ñu fàttali rek ne ba ñu fi nee ba léegi déposé nañ juróom yoon pour ñu manifester ñeenti yoon yëpp dañu ko gàntal benn bi sax dañu fekk ci kër ci piège u siège u Malick Gakou ñu génn ñu manu militaire yi te amul kenn fu ñu ko teg ci yoon donc muy wane que ñun jàmm rek la ñu dox ci réew mi jàmm lañu bëgg ci réew mi waaye nag li nga xam ne mooy suñu ak suñu def dañ ko xeex dañ ko def parce que li ñu bëgg ci réew mi mooy détenu politique ñu génn leen mooy mooy élection inclusive élection inclusive loolu moom duñ ci dellu gannaaw te luñ mun def pour que mu am dina am dañ ko def donc loolu moo tax ñuy woo sénégalais yi ñu may ñu nopp ñuy woo sénégale yi ñu ànd ak ñun ci loolu nga xam ne mooy ut jàmm jàmm bu ñu lal ci dëkk moo tax ñu lal bii plan action plan action bi ponk yii la benn bi mooy dañu bëgg seeti waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy chef religieux yi muy ci jàngu bi muy ci l'islam bi ñu waxtaan ak ñoom bu ñuy dem nag dañu ànd ak benn mémorandum mémorandum bi dañ ciy wax lépp li nga xam ne moo xam ci dëkk bi li nga xam ne mooy gàllankoor euh, euh, démocratie te di euh, salfaañe ak ak yelleef yi doomi aadama yi fi nekk donc mémorandum boobu lañu ñu am la ñu dem waxtaan ak chef religieux yi waxtaan ak patronat bi waxtaan ak ñëpp waxtaan également ak ambassade yi fi nekk waxtaan également institution yi fi nekk yoo xam ne ñu ngi ci réew mi comme au commissariat des Nations Unies pour la défense des des des libertés ak Union européenne ñoo ñëpp ñu seeti leen am na sax ñoo xam ne déjà am nañu ak ñoom rendez-vous semaine prochaine dañuy commencer loolu waxtaan ak ñooñu euh, wax leen daal di xew ci réew pour que kenn du umpale li nga xam ne moo xew ci réew bu ñu defee loolu am na leneen loo xam ne dañ ko doxalee mooy euh, def ba nga xam ne euh, li ñu wax rassemblement bu mag a mag a mag dina am bu màggal bi passé loolu ñu ngi ko prévoir le 8 septembre boobaa itam dañu bëgg def rassemblement boo xam ne mucc ayib la Sénégal yépp ñu ngi leen di ñaan ñu jóg ñu ànd ak ñun parce que comme ni ma ko waxee jàmm lañu bëgg ci réew mi jàmm bu ñu lal ci dëgg ak ci euh, justice. donc loolu ñu jàpp ko 8 septembre ñu préparé ko bu baax a baax a baax pour que niñ ko bëggee mu amee ko noonu li ñu ciy teg mooy ñu rëb ñu def terminer dialogue du peuple dialogue du peuple dafa am ñaari atelier yu ci des benn bi mooy. bi nga xam ne moom la ñuy wax réforme institutionnelle maanaam dafa am yoo ay soppeeku ay soppi yoo xam ne dañu ko war a soppi ci institution yi ci réew mi te soppi boobu bu ko defee dinañ fexe bi nga xam ne li fi am cent 1960 bi léegi maanaam am président boo xam ne mooy buur di bu mi lu ko neex mu def ci réew mi lu ko neex mu def ci assemblée lu ko neex mu def ci justice loolu mu di mu dañ fi te pour ñu mu dañ fi il faut ñu am ay waxtaan yu xóot yoo xam ne sax dañ koy teg déjà ci li nga xam ne waxtaanoo nañ ko fii fukki at a ngi nii mooy assis yi mooy CNRI loolu ay kayit teg la waaye dañ koy actualiser waxtaan ko bu mu xóot ba nga xam ne réew mi dootu fi am benn président boo xam ne day def ko neex di buur di bumi loolu lu am solo la li ci topp mooy que bëgguñu bëgg nañ opposition bi nga xam ne ñoo ne ci réew mi ñu waxtaan bu baax a baax joxante loxo ba nga xam ne dañ fexe bi élection yu war a am jaar ci yoon élection yoo xam ne du niroog yi amoon 2019 bi nga xam ne dañoo pare ñeenti candidat yi nga xam ne dañoo contre Macky Sall yëpp ñeenti ñëpp ne élection yi jaarul yoon loolu waratu fi am donc il faut que ñu waxtaan bu baax ci loolu donc loolu am solo ci réew mi moo tax ñu ne loolu foog ñu àggale ko bi ci topp mooy euh, li nga xam ne mooy opération euh, diisoo ak euh, waxtaan ak yi nga xam ne ñooy transporteurs yi ñooy patronat bi ñooñu bu ñu waxtaanee ñoom waxal leen wax leen li xew ci réew mi dañu bëgg ànd ak ñoom mooy euh, syndicat yu mag yeeg yëpp bu ñu àndee ñoom ci dëgg ñu ne nañu fexe ba euh, taxawal li nga xam ne mooy activités yi mu mën ko def ci par exemple ñu ne huit heures ba bu kenn génn këram bu kenn dem ci banque bu kenn dawal oto bu kenn def lii donc muy genre désobéissance civile boo xam ne dañuy won ne sénégalais yi d'accorduñ ak li nga xam ne moom la Macky Sall ak buuram nekkee fii maanaam di tëj di rey di salfaañe donc euh, ak ak yelleef doomu aadama yi ñëpp bu jàppee ne loolu warul jàppee ne li mu defee li mu teg ñoom Ousmane ko ak ñoom euh, Cheikh Bara Ndiaye ak ñoom Pape Abdoulaye Touré ak ñoom Hannibal Djim dëgguwul ñëpp buñ jàppee ne buñ jàppee loolu dëgguwul ñu ànd def li nga xam ne mooy tax ci jàmm ñu am li nga xam ne moom lañ bëgg ci réew mi maanaam loo xam ne euh, ak ak yelleef dina fi nañ ko continuer donc loolu mooy li nga xam ne mooy plan d'action bi nga xam ne moom lañu tëral pour teg ko ci fan yi di ñëw am yaakaar ne sénégalais yi dañu may nopp am yaakaar ne ñi nga xam ne bëgg nañu réew mi ñi nga xam ne bëgg nañu jàmm ci mi dañu ànd ak ñun euh, ñu def ko ci jàmm am jàmm ci réew mi ñu di gërëm leen sax ñooñu amuñu doom amuñu liggéey amuñu sas donc wax jooju wax ju yàqu la jënuwul maana euh, luy sampu moom mooy tey détention préventive bi nu ñu koy utiliser fii Sénégal daanaka du mille détenus yi rek ñoo nekk otage bu Macky Sall tey justice ci boppam dafa nekk otage bu Macky Sall lu koy fiir daal moom mooy procédure yooyu yëpp nga xam ne sumb nu ko te la plupart wóor na leen ne du antu lu ñu ci damm nekk lu dul jël nit ñi nëbb leen jaww ji le temps que effectivement ñu dérouler seen plan tey nekkul sax indépendance de la justice bi nga xam ne faral la koy wax moom moo nekk en cause mais c'est que dañuy jël cour justice ñu dévier ko maanaam dañuy jël ay dossiers yi nga xam ne dañ koy dénaturer dévier cours de la justice finalement juge ci seen bopp mbir mi sax dafa ëpp ci seen loxo parce que dañuy jël ay procédures cadencé ko teg ko ci benn circuit wóor na leen du antu mais ñoom luñ ci dàmb moom mooy rek tëj ay nit loolu nag comme nuñ koy waxee kenn moo ko mën a xeex muy askanu Sénégal F24 pare nañ pour xeexal askanu Sénégal mais est-ce que askanu Sénégal pare nañ pour xeex rôle F24 lu muy def tey moom mooy devoiru intellectuel devoiru leader politique moom mooy lan moom mooy éveiller conscience publique maanaam wax leen tolluwaayu réew mi wax leen ne Sénégal daa ay ponk ay charte yu ko lal am jaar-jaar mënuñu nangu nit ñëw ne pare na day dem ba pare bëgg a nërmeel li nga xam ne moom mooy suñuy acquis loolu ñun rek ñoo mën a xeex xeex bi mais buñ lay xeexal day fekk nga pare pour xeex laaj buy samp moom mooy est-ce askanu Sénégal pare nañ pour wëyal xeex bi wëyal xeex bi ci yan anam ci dal ci jàmm du dara lu dul wax nañ ko plan d'action bi nga xam ne sumb nañu ko danañu ko dérouler mais aussi Macky Sall la président la gouvernant la mën da jàpp ay nit yóbbu leen kaso léttu leen firiwu leen parce que ñi ñu tuubaal ñëpp am na ñi nga xam ne sax ay élèves la ñu woon dañu jóge woon école di jibbi si ñu jàpp leen tey amul benn complexité bi nga xam ne mën na justifier tey ñu leen téye ay weeri weer wala ay nit yu mel ni joomaay wala ñeneen def juste benn post ci Facebook mais loolu lan lañ ciy gëstu comme lu ñuy wax ci olof lu ne fàgg kenn du ko nataal donc tey lu tax ñooñu continuer nekk ci kaso bi du dara lu dul dafay utiliser détention préventive comme peine déguisée pour sanctionner ay adversaires politique loolu daf ko wóyal ba jàpp bu ñu xam ne jàpp nañ ko Ousmane Sonko xaar ba jàpp ko ñu compiler ay accusation ay déclaration laaj bi samp moom mooy procureur fan la nekkoon ba muy def déclaration yooyu comme ni ñuy wax la défense du droit et toujours immédiate tey baloo ñëw li nga xam ne am na amaat amaat nga xëy xëy ne léegi dama lay jàpp parce que loolu la woon parce que c'est pas prescrit loolu amul maanaam ban ordre public ngay maintenir ordre public bu ñu ko mettre en cause tu le défends immédiatement loolu donc da lay dañu décider jàpp ko après ñu ne foog ñu wut ay motifs mbir mi nag du dara Macky Sall ëppul fit kenn Sénégal wax na ko caat ak ñeneen ñi fi nekk la plupart mën nañ combat bi pour mu ñëw mu gëbloo ñu ñaari mbir bu ci njëkk moom mooy day rétablir démocratie tey la waalo gën a aay mu ne tey day rétablir état de droit ñu yóbbu ko cour de justice de la CEDEAO mu condamné ko mu ne du ko jëfe mu am fit ak sañ-sañ ne day digalaatee waa Niger ñu sangu alors que moom nee na du sangu parce que charte ba nga xam ne ca la juge yi sëkkandu ko pour condamner ko respecté wu ko loolu aussi pare guñu ak moom danañ ko dox ci yeneen i eh, jamono. mais lu ci mënti am moom mooy foofu laay tëjee moom mooy euh, mobilisation bi tey la war a gën a am dayo tey Sénégal.